maa ngi nuyu mbooloom ñi ma fekk yëpp di leen sant maa ngi tudd Adama Diop dëkk Medina fa di coordonnatrice parti socialiste nekk ci biir euh, compagnonnage Benno bi dafa dëgg yàlla di sant bu gërëm ndax gis naa sant bopp kontaan nañ yàlla nañu yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi ma fi fekk ñëpp man day Ndella Diouf laa tudd bokk ci parti ànd jëf nekk responsable. ah bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu nekk fii ci responsable femme bi nga xam ne moonu jiite ci fii ci zone nord liggéey ci liggéey bu rafet ba tey ñu dajewaat di ñaan yàlla jàmm yàlla nañ fi dajewaat ba feete sunu victoire sunu borom mën na ko yàlla na ko def ñu ànd ci xale bu sawar xale bu yaru boo xam ne jàppale nañu li ñu bëggoon a dox te mënuñu koo dox ñun mag ñi moom dox na wàllam doxaale sunu wàll kon tey bu nu àndeek ñoom coalition bi daal gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax ñi ngi yaakaar ne yàlla dina nu may ndam ndax li tax am ndam yëpp liggéey nañ ko ci li maye ndam yëpp def nañ ko déggoo bennoo bokk yaakaar loolu yàlla boole nañ ko ba ñun ñëpp ñoo nekk benn kenn xàmmewu ci ki moo nekk ci parti bi wala kee moo nekk ci parti bi coalition bi daal yàlla na ko yàlla eggale fi ñu bëgg yegg ñu eggale ko fa ba ñu jot suñu victoire toogaat feete ko barke yonent bi salallaahu alayhi wa sallam gërëm nañu màgget lool nag Jóob xale bu yaru bu neex a àndal maa ngi tëje foofu sama kàddu rek ndax xam naa ne temps bi gàtt na nit ñi yàkkamti nañu loolu rek moo tax waaye liggéey bi ñu waroon a def yëpp ci terrain bi def nañ ko auzu billaahi mina sheytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sang yi salallaahu alayhi wa di sant suñu ñaari wayjur man nag maa ngi tudd Ndey Faatu Jóob bokk parti réew mi bu président Idrissa Seck mais nekk ci biir mouvance présidentielle bi bokk nag ci coordination communale des femmes de Benno Bokk Yaakaar suñu doom suñu xarit màgg di Diop jiite ko ah xam nga ay mag bu ñu nangoo topp ci ginnaaw xale rek ca xale ba la doxalinam moo tax li mu ñu won moo ñu doy moo tax ñu jiital ko topp ci ginnaawam waaye balaa dara xew nag dañuy gërëm ñi ñu jàppale coordination communale des femme bu bennoo dafa am nag ñu ñu jàppale ki ci jiitu nag mooy lu président Malay Diop moo jëkk a génne ndimbalam jox ko femmes yi ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk ndam li muy wutal président Macky sàll ñu di ko ko wutal yàlla nañu ko yàlla may ñu ngi gërëm moo njaay mbay dugal na ci loxoom ñu ngi gërëm Malick saw le coordinateur communal Pape Malick Sow kooku moom suñu doom la ndax ñoo yaayam ñoo defandoo lépp ñu koy gërëm bu baax di ñaanal yalla di wax ni nak ñi ngi yaakar ndam yalla moy maye ndam yalla nañu may ndam li taxa am ndam nak yaakar nañu ni buñu deful lepp def nañu ci li ëpp séti nañu suñuy mbokk séti nañu suñuy xamé wax ak suñuy doom ndax nak ay jaboot lañu te jabot jàmm ko jik te benno bokk yaakar bi nak fa la ji ne ñuy di wote nak ñi ñu jotul wona gis ñi ngi leen di jéggalu bëggoon nañu ñëw ba ca ñoom sukk tàllal leen suñuy loxo waaye ku dégg suñu kàddu daal nga xam ni dañoo bëgg daal bu dimaasee la ëpp ci réew mi àndandoo woteel Benno Bokk Yaakaar pour la stabilité du pays ñu may Macky Sall mu yeggale ba 2024 yàlla na ko yàlla def. salaamu aleykum euh, waa Thiès maa ngi nuyu ñëpp di nuyu particulièrement waa Thiès Nord di nuyu nag coordination communale Benno Bokk Yaakaar bu Thiès Nord. bi nga xamante ni suñu xarit suñu camarade de parti Pape Malick Sow moom moo ko jiite. Euh, di sant bu baax Pape saw nag di rafetlu liggéeyam tamit ci commune de Thiès euh, nord coalition Benno Bokk Yaakaar tey nag ñi teew fii ñëpp ñu ngi fi teewal coordination communale des femmes de Thiès nord Benno Bokk Yaakaar. ma ànd fi nag ak sama nawle jigéen ñi ñëpp wax nañu sànq ñenn ñi di ay yaay ci ñun ñenn ñi di ay sœur ci ñun ñenn ñi tamit di ay mbokk daal mbokk rek la ñuy wax parce que Thiès moom benn bopp la donc waa parti socialiste wax nañu léegi waa réew mi wax waa LD waa agi wax waa LD ak mouvement cees ca kanam ñoom ñëpp ñi ngi ñëw parce que tey ji ku nekk xam na ni bis bi dafa xat ndax bi su clôture la te kenn ku ci nekk danga war bàyyi sa wàll ci tool bi te kenn buggu ko bàyyi ak sa morom ndax xir rek moom moo waral lii Benno Bokk Yaakaar ni ñu ko waxee rek Benno Bokk Yaakaar te benn bopp la donc kenn ku ci nekk yaa ngi ci li gën pour coalition bi donc ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ni ko tànday faatu waxee nag Euh, xale bu loxoom setee mu mën bokk ak ay mais mag également bu mënee supporter xale ci yaren bi la ak doxalinam donc ñom ñi ngi leen di sant bu baax parce que suñu and bi and nañ ko biñu ñu campagne bi batay jusqu'à maintenant te ben xiro amul ben ngaayo amul donc l'espoir est permis parce que ñoom ñooñu xajoo ndax ku ne xam na ndaw and ak mak yombul mais ñom ñoo ñu leen koy bu baax ndax bokku leen conviction yi du doon mais nous ñun suñu bëgg-bëgg la muy ndamu président Macky Sall ndamu Sénégal ndamu Benno donc ñuy profiter ci opportunité di le président Malay Diop ci app bi nga defal vraiment les premières heures euh, également président Mor Ndiaye di santat pap malik Sow parce que loxom tamit jogu ci vraiment di sant nak le président pap Doumbouya nga xamni mom tamit vraiment jàmbaaru fak teud la ci yoon bi mom kenn duko fatte ben benn yoon di ñaanal mom tamit vraiment dans toutes ces entreprises une réussite totale ainsi que ñi nga xamanteni ñep précité précité na len donc du jéxal te waxuma ni euh, lancer un appel à tous les Sénégalais particulièrement aux populations de Thiès et aux populations de Thiès Nord parce que ñun Thiès Nord là, donc nous ku ci gagner à la base pour gagner globalement Nous ngi voter utile voter utile voter pour la coalition Benno Bokk Yaakaar voter pour la coalition ben-, Benno Bokk c'est une continuité la stabilité du pays et la paix parce que ku nekk xam na ni benn jur benn borom kër du sañ jóg bay wuti ngir njabootam donc ñu ngi leen di lancé waat un appel xam ne président Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais te jàmm rek moo ko tax a jóg ak avancement Sénégal émergence su Sénégal donc kon voté leen utile te ngeen jël li nga xamante ni baaxul ngeen teg ci poubelle bi jël bi nga xamante ni mooy marron beige bi ànd ak bopp fas bi ngeen voté ko muy seen jàmm di seen jàmmi njaboot ngir ëllëgu réew mi ak ëllëgu seen njaboot yépp di santaat nag di gërëm bu baax jigéen ñi ndax ça aurait été le contraire bu du wonteeg jigen ñi tay du demee ni jigen ñep dañu xassay tous les 19 centres de vote de la commune nord kenn dessul de bout en bout village rattaché yi wuñu kenn ñom ñep ñep takku won taxaw nek ci terrain bi proximité wuñu kër wuñu fenn fep dugg nañ fa donc ñu di leen bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di wax nak ni nañu teel a jigen ñep ñëpp nañu teel teel la laxasaayu dem ci bureau de vote yi calmement delluwaat ci seen i sans tambour ni trompette bu 18h ñu proclamer au la main Benno Bokk Yaakaar jël victoire bi nak jox ko président jox ko docteur Augustin Tine mu tek ko ci loxo président Idrissa Seck mu delloo ko président Macky Sall Sénégal jëm ci kanam may santat ñep di gërëm ñep di wax nak bonne chance à la coalition Benno Bokk et tous mes remerciements à toutes les femmes de la coalition Thiès Nord Benno Bokk je vous remercie.